Euh, moom Sonatel euh, gis na ne tamit wax dëgg yàlla euh, mi ngi créé waat mi ngi mi ngi ay employé yoo xam ne nii ngir gën a mën a yaxanal bu baax a baax a baax liggéeyu ndaw ñi mi ngi tamit wax bu baax a baax a baax fi mu toll ci Euh, fi mu toll ci wàllu liggéeyam euh, gis ngeen ne tamit euh, doon nañ fi wax ni maanaam am na benn licence boo xam ne ni dañ ko doon jaay muy licence cinq c bi ñu wax ni ñoom ñoo ko gagné woon voilà to ko xam cinq c xam ni cinq c moom moo gën gardien moo juumul parce que tamit gis nañ ne 5C bari na ci ñoo xam ne ne xanaa dañoo wax ne maanaam kat 5 boo ko amee xanaa yow léegi dootoo am connexion boo xam dafay dagg ci ajoog yooyu noonu voilà beneen bi ci des tamit tamit tamit moo di client yi daal wax dëgg yàlla comme mënuñoo bàyyi Sonatel voilà te Sonatel tamit mënuñoo bàyyi client yi nañu gën a yaxanal nañu gën a jàppale tamit euh, société bi ndax euh, yaakaar naa ne àdduna bi foofu la toll toll nañ ci euh, jamono boo xam ne nii kenn mënut a ñàkk connexion voilà kenn mënut a ñàkk connexion kon saa su nekk rek dee leen gën a jege askan bi dee leen gën a jàppale askan bi ndax eh, yaakaar naa ne jamono yi ci ginnaaw ak li ngeen daan def li ngeen doon def xëy na sax nit ñi fàtte nañ ko waaye eh, dafa nekk loo xam ne nii bu mën a bu mënee ñàkk mooy li gën di couper ay internet voilà en plus tamit boo jëndee connexion mu gaaw a jeex voilà yooyu yëpp bàyyi leen ci xel bu baax a baax xam ne àdduna bi dafa toll foo xam ne nit ñi mënatunoo ñàkk connexion waaye nag bu leen fàtte ne maanaam chaque jour ngay gagné bataille bi wala ngay gagné say client saa su nekk dee leen gën a jàppale dee leen gën a yaxanal bu baax a baax a baax bu ko defee client yi dañuy gën a euh, bëgg lii nga xam ne ni moo di euh, euh, Sonatel kon nag yéen waa Sonatel gis nañ ne daal wax dëgg yàlla yéen a ngi wax fi ngeen toll yéen tamit yéen a ngi yéen a ngi gën a ñoŋal seen liggéey eh, yéen a ngi wane ni maanaam yéen a ngi teg ay jéego ndax xam nga seen fibre bi tamit bari na ci ay clients yoo xam chaque jour saa su rek dañ ñu koy laaj voilà fibre mooy lan fibre fibre benn wifi la boo xam ne da ngeen da ngeen ko indi pour askan bi askan bi nag bari na ci ñoo xam ne soxla nañ ko waaye am na ci ñoo xam ne nan la ñuy def ba demande bu ñu demandé est-ce que wala fan la war a jaar xam nga yooyu yëpp sénégalais yi saa su nekk ñu ngi koy laaj am na ci son yoo xam ne am na fa voilà fibre bi ñenn ñi nee nañ dañoo wax ne moo gën a ëpp doole léegi mooy flybox bi voilà léegi nag euh, kan fibre bi ndax ñëpp ko war a am voilà loolu moom cliente yi sénégalais yi ñoo koy laaj te bari na ay sénégalais yoo xam ne nii wax dëgg yàlla soxla nañ ko lool lool sax wax dëgg yàlla soxla nañ ko waaw kan nag waa Sonatel gën leen a waaw gën leen a jàppale euh, sénégalais yi bu baax a baax a baax jaajëf 80